Wad qui est devenu lui aussi un monstre très froid mais avec intelligence parce que tay, lo meuna waxal PDS ñi ci sen logique rek wax nga ko kérok. ñi ci sen logique ñi ngi tok rek mais Karim Wade la gis nañ ko gisuñu ko Té lool nak militant PDS de commune. dañ dan tok dix ans duñ gis Wad, wala cinq ans duñ gis Wad. xam nga Wade souvent da daan absent Lolo waral assemblée buñ mësan tuddu tudd Ablaye Wade Aram Diène ndaysan dem ci yalla da daan tooñ il est mort nga xam kon xaxarante ak ak ak sànnante track yàgg am assemblée. mais c'était mm. c'était c' policier. dafa mm. dafa dafa rafetone mm. kon juste pour dire que né héritage bobu nga xamantene fi Macky Sall don jaar man je pense que Amadou xamu ko. nan la dan def ak nan la dan def bu réussir lolu ba nga xamantene am nañ fi une année universitaire bu amul ben crise amna fi ben at mu sedd ni yëf di nga xam demoon nañ ba état jing ba nara ñepp jàpp ne këpp rek mo dess mais état wat taxaw mais Macky Sall am mérite ci côté politiquement parlant. Hmm. ak en tant que nak manager ci ni gérer état mais nek Amadou bu ñëwee nekkoon à l'écart pendant quelques années ñu ñëw rek ñu jëlat le fardeau jox ko moy def ko le chef du gouvernement automatiquement mu nek premier ministre ñi nekkoon en activité politiquement ñu ñëpp ñen ñi ëpp le mérite politiquement parce que buñu ñu APR tay amna sangam amna 82 députés mais mm. il euh, y a Amadou Ballal qui a été ligué, parce que Dakar a donné 7 députés, et Barthélemy a gagné avec presque 100 000 voix de plus. Mm. Donc, les 82 députés de Bernard Boko à l'Assemblée, mais les députés là, sur ils regardent Amadou ba ils ne connaissent pas place fille, ils ont été dévotés ils n'oseront pas dire ça peut-être à Diossar, dont est pertinent, mais il a mouillé le maillot. Ils n'oseront pas dire ça à, à, à Farbangom, euh, donc à ADD, à Kenen, à Kenen, à Kenen. Donc, il y a beaucoup armes. Tout le temps, les gens ont tiré pour toi. Les gens ont gagné des guerres pour toi. Les gens ont le major, le chef de guerre. Mais plan de guerre, il euh, y a des batailles qui, qui, ont fini comme ça. Euh, Wote ba ñu song ñu dem ñu def ko fet di naanaka foo akaree juboo do souf yoy la. Mm. est-ce que mom xalatul lolu est-ce que dans ces calculs na fait rek deuxième tour am parce que y a des chances deuxième tour si am ci lu nara tour, bett nit ñi un deuxième du ci mm-hmm. ah oui on peut voir on peut avoir au deuxième tour Idrissa Seck et la coalition autour de Ousmane Sonko c'est très possible. Mm-hmm comme Amadou peut aller deuxième tour mais avec la coalition li gën a probable bu opposition bi nga xamante ne Ousmane dana ci dugal un kan lay doon xamaguma su boobaa lan mooy xew Amadou souhaiterait que Idrissa Seck le ko et dans les deux cas Idi jàppale Amadou Ba mais pour man Idi jàppale keneen ku dul Amadou Ba c'est yonam, c'est Idrissa Seck parce que jàppale na Macky Sall deux fois mais les conséquences sont négatives Si jàppale waatee Amadou Ba sachant que moom bokkatul mais il tue son parti. Hmm. parce que Amadou va récupérer son parti parce que son parti dinañ xam Idriss Seck n'existe plus. Hmm. mais bu jàppalee tey ñeneen ñu nga xamante ne ñu bees lañ ñoo ñëw mais comme le président mais il reste le chef de parti comme ni ko il hmm. reste le chef de parti. mais tey bu que Amadou moo falu Idrissa Seck jàppale ko mais Idrissa Seck day ñàkk réew mi amul sax de ma faire, parce que ñi nekk ci réew mi nag dañuy jëmmal nag taxaw bëgg dara ñoom it. Hmm. am ñoo xam ne derrière depuis longtemps les choses tournent entre Idi Yankoba Diatara nangam ak nangam y a des gens qui sont am na ñoo xam ne génnoon bëgg nañ dellusi. Hmm. ils ont le sang euh, nu mu tuddati euh, orange ils se sont battus pour mettre euh, nu mu tuddati réew sur la table. Hmm. Idi nag ak ay Amadou Ba ñoom dafa am ñuy gisee politique. mooy gagner ou gagner ñoom xamuñu jàpp jàpp nañ ne waruñoo ñàkk donc risque bi que loolu bu taxawé nak Amadou Ba gis tous les moyens sont bons hmm. j'ai l'état j'ai l'argent j'ai le président entre guillemets man fa la taxaw damay dem débaucher parce que y a des sénégalais débauchables hmm. qui sont prêts à vendre euh, le candidat Abdourahmane Sow tok na les gens sont venus le voir mom xëy un amul milliard amul nanga mais nit ñi sa xébuñu ko am nañ ay parrainage waaye soñu défalé defalee soñu défalé hmm. une manière voilée de vendre des parrainages. waaw kon ñëpp kañ ñëpp ndagam Abdourahmane Sow lañ koy def waxatuma lak Amadou Ba. gay yi kañ mercenaires yi ñëpp lañuy séti légui nak da nga ku ne yaangi daw. Anta Babacar cellule de communication wax nañ ñaañ am nañ trois cent mille mais pour calculer parrains yi ñëpp di wax mais day romb fichier bi. Hmm. <laughs> déjà Benno moom nee na ils ont la moitié du fichier. bientôt 4 millions bientôt ils auront bientôt peut-être 4 millions de parrains. Mm. parce que arrêté les chiffres n'y mais si tu as 4 millions de parrains donc tu as 65 du fichier voilà tu as 60 du fichier. tout à fait quand tu as dem le jour où tu as sax voix qu'il montre la voix ou pas euh, c'est un journal euh, référence.